allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في هذه الجمعة في هذه الجمعة نتحدث معكم و نتناول معكم وصية من وصايا الشيخ الخديم يقول الشيخ أحمد الخديم دين بهدى الإسلام فهو دين والله يعلي من به يدين يا ساحي لا تفعل لخير الله شيئا فذاك فعل قمر الله أخلص له العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال تب من سوى ما لم يكن رضاه ولتعنى بالسيء الذي يرضاه صل الفرائد مع التوابه muraaciya naaji rasuli taabi hibba jamihi lmuminina naawiya xayran lahum takun li xayrin xaawiya wala simu rafda allazi laa yanfaxu wa baadiru wa baadiru li nafi aysu yaqahu أيها الإخوة إن مثل هذه النصائح والإرشادات هي التي توجه منهج الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وطريقته في الحياة وإن التمسك بها هو جسر العلاقات فيما بيننا وبينه اللهم اهدنا فيمن هديت wa tawallayna fi man tawallayta wa akfinaa sharra maa qadayta innaka taqdi wa laa yuqdaa alayk fan yi weesu yëpp ñu nekkoon ci di waxtaane loo xam ne lu am solo la ci àdduna si muy li nga xam ne mooy tax suñu àdduna jaar ni mu war a jaaree mooy doon mooy tax li nga xam ne moo doon li nga xam ne itam mooy tax suñu dund neex ni mu war a neexe tey nag ñu indil leen benn dénkaane boo xam ne dafay mel ni dénkaane la boo xam ne Sëriñ tubaa jëm da jëmale da koo jëmale ci mboolem kuy doomu aadama rek rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo mu mel ni dafa dañoo bëgg a soññ ci wóllëre ba nga xam ne dogu woon nañu ko suñ digganteeg suñ borom ba nga xamee ne bind nañu te bind ba mu bindee ruu yi te am loo xam ne moom la waxoon ak ñoom mooy laaj nu ndax ma ndax du ma seen borom ñun ñëpp ñu àndandoo ne woon waaw kon waaw joojee nag la bëgg la bëgg ñu des ca gën koo sa gën koo sàmm gën caa taxaw loola nag lay lay tax ñu man ko la koy dëggal lay dëggal waaw joojee ak lay wane firnde ja mooy ñu nekk ci li nga xam ne moom la bëgg ñu nekk ca te bi ci njëkk mooy nañu diine woo nañ def suñ diine muy lislaam lislaam nag ñu xam ne baat bu yaatu la mën nañ cee jublu baatub lislaam ji nga xam ne moom lañ xam muy ji nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi waaye mën nañ cee jublu itam mboolem diine yi nga xam ne moom la suñ borom wàcce woon yooya nag xam nañ ne diine yépp suñ borom dafa mel ni bi mu bindee doomu aadama yi dafa am contrat boo xam ne da koo signé ak ñoom contrat ba nag mooy ñu nangul ko ne mooy suñ boroom bu ko defee nag nangu itam li nga xam ne mooy jóge ci moom loola nag ngir ñu def ko mooy ñu ñu diine woo diine ji nga xam ne moom la bëgg ñu diine woo ko ñu xam ne contrat bi nag ñëpp ko bokk siñe ñoo bokk itam nuñ koy defee waaye xëy na lañ ñuy liggéeyaloo moom mën naa wute waaye xam nañ ne baat yi nga xam ne moom la suñ borom moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy as julli ak asaka ak woor weeru koor ak ak aj màkk yooyu yëpp ak nangul suñ borom ne mooy suñ borom yooyu yëpp day ci diina yi jiitu woon yëpp itam am na ci ndax suñ borom moo nu wax ne wama umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu diinu hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika diinul xayma waxaat ñu itam ne yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun mu mel ni kon mboolem baat yi nga xam ne moom lañ miin ci lislam moom itam suñ borom moom la digaloon ñi jiitu woon te nekkoon ci diine ji nga xam ne moom la bëgg ñu nekk ca mu mel ni kon xëy na defin wi mën naa wuute ndax contrat bi moom benn la waaye liñ ñu sant moo mën a mooy wuute léeg-léeg ci defin wi waaye moom contrat bi lenn la liñ ñuy defloo itam lenn la kon mu mel ni nag suñ tuba suñ tubaa day fa ñuy sant ne ñu nañ def suñ diine muy lislaam diine joojee nag mooy diine ji nga xam ne mooy ju dëggu ndax mooy diine ji nga xam ne ku ci nekk ku nekk suñ borom dana la kaweel dana la jàppandal say mbir ndax suñ borom moo wax ne wa man yattaqillaha ca loo maxrija wa yarzuqhu min haysu laa yaxtasib kon mu mel ni lii tax ñu nekk ci diina ji mooy ñu nekk ca te nekkal ci suñ borom te mu doon lu dëggu ci ñoom ci ñun mu ne nag boo demee ba dugg ci diina ji ba nga xam ne yaa ngi jëf li nga xam ne moom lañu sant nga war koo def ci diina ji mooy la ngay def na nga fexe ba bul kenn tax nga def ko ku dul suñ borom nee na ndax boo ko defee keneen boo ko defalee keneen suñ borom wala nga am kenn lenn loo ca fas lu dul lu suñ borom dafa koo xam ne am xelam dafa neexut bu mu boole ca nag doon ab fokkat ku xelam neexut ba noppi mu boole fa fokk mu boole ca doon ab fokkat nag yaakaar naa ne jëfam du sori kon nee na nañ doon loo xam nañ nañ nekk koo xam ne li ñuy jëf ci diine islam day wala li ñuy def ci ngir ndigal yi nga xam ne moom la suñ borom digal na doon ndigal na doon loo xam ne suñ borom rek tax ñu di ko def te li nga xam ne ne diina ji itam ngir nga xam ko faaw da ngay jéem a xamlu mu ne nag loolee mooy kon jëf xam-xam boobee ngay xam ngay xamlu ak jëf yi ngay jëf nee na na nga ko na nga ko booleeg am ànd ak i teggin akub yar ndax loola xam-xam ba lu mu bari bari jëf yi lu mu baax lu mu baax baax te àndut ak teggin nee na jëf joojee mën naa bañ a àgg fa nga xam ne fa nga ko bëgg mu àgg fa mën naa bañ a daje itam ngërëmu suñ borom mu mu xamal ni ne suñ borom mi nga xam ne moo bindu doomu aadama te xam na ne doomu aadama ku di la ndax moo ko waxal boppam waxul xal insaanu daifa kon xam na ne doomu aadama léeg-léeg mu ay rëq-rëq dal mu def ko léeg-léeg ay njuumte mu def ko waaye nag wutal nañu bunt boo xam ne su ñu defee njuumte wala ñu def ay rëq-rëq ñu jaar ca mooy ñu tuubal ko delluwaat ci moom fas yéene itam duñ delluwaat ci loolee nga xam ne moom lañ defoon ci ci te doo teguwut ci ak joon ndax loolu nee na mooy li nga xam ne mooy bunt bi ñu suñ borom bindal ubbil muy suñ defee loo xam ne bokkut li nga xam ne moom la bëgg ñu def ko ubbil nañu buntu tuub bu ñu bu bu nekkee ci li nga xam ne moom la ñu sant itam ñu nekk ci am na bunt boo xam ne moom la ñu def moom la ñu ubbil mu xam mu doon mu doon boo xam ne boo ca nekkee ba tey dana tax nga gën a sax ci li nga xam ne lu baax li nga nekkoon mooy sant boo dee sant lu baax li nekk day gën di yokk boo dee tuub itam safaan bi nga defoon suñ borom dana koy jéggal mu mel ni kon suñ borom wutal nañu ay bunt yoo xam ne danañ dana tax ba li ñuy def ci mata ci mata di lépp ak li nga xam ne ñu ngi koy def xëy na te te tegu ci yoon te bëgg mu sax looy def lu baax te bëgg mu sax da nga cay day doon da nga cay da nga boole ak cant sant suñ borom kon loola suñu borom dana dimbale ci mu sax bu dee bu dee bu fekkee dañoo def itam loo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la suñu borom bëgg la ñu dimbale mooy ak tuub te tuub googu itam mu bañ doon loo xam ne waxi làmmiñ rek lay doon waaye day ànd ak dogu ak pas-pas ci fas yéene doo ciy delluwaat mu ne itam ndigal yi nga xam ne moom lañ suñu borom digal te bi ci gën a rëy muy julli. nee na nañ fexe ba di ko def ci waxtu yi nga xam ne moom lañ ko suñ borom sant di di ci boole itam duñ jam rek ci nag ci julli yi nga xam ne moom lañu sant muy tisbaar takkusaan timis gee waaye naafile yi nga xam ne moo war a jiitu naafile yi mooy war a jiitu farata yooyu itam nañ ci góor di ko def te itam nag buñ koy def nañ ko defee ni nga xam ne ni la ni la ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sante mu mel ni lislaam doonut loo xam ne da nga ciy doxee sa xam-xam sa gis-gisu bopp doo ci doxe itam sa bëgg-bëgg bopp waaye danga nga ciy doxe ni nga xam ne ni la ko suñ suñ borom sant mu ne itam war ñoo nekk ñoo xam ne dañoo war dañoo war a bëggante képp bépp jullit bu ñu gis rek nañ ko bëgg yéene ko itam ab yiw ndax loolu mooy tax nee na amu yiw loolu mooy tax itam ñu ñu ñu tegu ca fi nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu tege fa muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo xamal ne jullit du nekk jullit mukk bu dëggu lu d ne dafa bëggal boppam dafa bëggal mbokkam li mu bëggal boppam mu ne nag am na loo xam ne mooy taxawaayu àdduna yi nga xam ne moom ngay taxaw ci àdduna si boo ci nekkee am na loo xam ne mooy gaar sa kanam lay gaar sa kanam nag bu dee lu loo xam ne lu am njariñ la nee na na nga góorgóorlu ci gaaw def ko bu dee lu amul njariñ itam nag na nga am fulla ju toll ni bàyyi ko fa njariñ nag mooy lan njariñ ak bànneex nag dañoo xaw a jegee te bokkuñu bànneex moom loo day doon dafa doon loo xam ne kan ko seqal wala ña ko seqal rek yéen a koy yéen a koy bokk waaye njariñ nag moom dafa doon loo xam ne luy matali doomu aadama yépp lay doon kon nee na lii nga xam lépp loo xam ne gis nga ne mu njariñ la nee na nga góorgóorlu ci def ko lépp loo xam ne itam gis nga ne du njariñ njariñ nekku ci nee na nga am fu la ju toll ni bàyyi ko fa kon mu mel ni jox nañu ay aw yoon woo xam ne maanaam lii dañuy woon dañuy won ne Sëñ Tuubaa tëral na aw yoon wu wér a wér ci ci àdduna ci nuñ ci war a doxe te tey danañ ko gën a xam nag bu ñëwaatee ci kanam tuut ci ci ajuma yi di ñëwaat incha allah kon mu mel ni ndi ndénkaan yi nga xam ne moom lañ sëñ Tuubaa di dénk ak ak labiré yi nga xam ne moom la ñuy jox mooy li nga xam ne mooy leeral yoon wi nga xam ne Tuubaa teg woon te bëgg ñu tege ca loolu mooy wane itam ne dun dundinam nii la woon loola nag mel ni kon ñun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo jàpp ci yoon woowee nga xam ne moom la leeral jàpp yi jàpp jàpp ci itam ci doxin woowa nga xam ne moom la doon doxee mooy li nga xam ne moo nuy lëkkalee ak moom moo nuy mooy doon loo xam ne itam mooy mooy mooy doon buum gi ñu gi ñu takk ci moom kon ñu gëm jéem a ci loolu yàlla nañu suñ borom dimbaleel boppam ndax moom rek moo am dimbal te mën a dimbali yàlla nañu ko defal allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin salatan tamxu biha kulla ma sadara minna mimma yuxaalifu ridaka min waqti wiladatina ila wafatina wa kaffir anna tabi'atina wa duyuunana wa kulla ma wajaba alayna laka aw li xalqika ijmalan wa tafsila wakfina bi jaahihi fihla kulli ma la tuhibbuhu wa la tarda hatta nalqaaka radiyan mardiya amin ya rabbal alamin mbokk yi ñi ngi ñaan suñ borom mi nga xam ne moom mën sañ te am kàttan nañu dimbali ba suñu réew mii nga xam ne mooy senegal suñ borom gën fee wàcc jàmm gën fee wàcc itam ay xéewal yoo xam ne ñu doy ba du duñu ba duñ dara loo xam ne luy naxal suñu àdduna dana ci am yàlla nañu dimbali itam ba nga xam ne suñu kilifa gi nga xam ne moo nekk suñu kanam muy Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne yéene na koo def ci lislaam mu def ko ci definu kawe njortam tam tam àndatu tam bokk bokk loolu ak képp koo xam ne yéene na ko ko yàlla nañu suñu borom taxaw yàlla nañu suñu borom sàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah